wala gën na koo jox itte bu baax a baax ci wax ji tomb ba ci jëkk mooy ndaw ñi ak war guñ leen war a jàngal yar leen waajal leen yëkkati seeni itte ba li nekk ci seen kanam ci ay responsabilité ñu mën ko yenu ba ci jëkk ci tomb bu jëkk boobu sëriñ bi leeral na solo su mag si nga xam ne ak ndaw am na ko solo ci lislaam Euh, makaana bi nga xam ne wala place bi nga xam ne ndaw am na ko ci lislaam am na ko ci société bi muy ñoo xam ne ñoom ñooy mébétu ëllëg ñooy yaakaari xeet wi yëpp mboolem li ñuy yaakaar ëllëg ci defar ci ñoom lañ ko yaakaaree waaye it mboolem ñi nga xam ne dañuy yàq it ci ñoom la yaakaaree ak yàq kon day war ci ci mukallaf ci waajur yi wala kilifa yi ñu fàggul leen lépp lu leen di tax ñu mat a def loolee ñu war a def ëllëg te man koo def nañ ko war a defee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 Ousmane subhanallah ginnaaw bu sëriñ bi leeralee solo si nga xam ne ndaw am na ko ci société bi ñuy dund leeral na nag lañ koy fagg faggoo lañ koy faggoo ba nga xam ne dana mën a eh, def lañ koy doy ëllëg defin woo xam ne defin wu rafet lay doon wu dëppoo ak nañu ko soxlaa loolu nag benn benn mbir képp la muy teg ko ci ak njub alhuda ak njub alhuda muy baat bu tuuti boo xam ne dajale na mboolem xam-xam yi ñu njëkk ña ak ñu mujj ña waaye dajale ne mboolem charaa u samawi yi nga xam ne ñoo wàccoon ci yonent yi yëpp la leen andi woon ak la taxoon yàlla wàcce ko lu dara lu mooy ak njub képp taxoon wàcce ko moo tax alxuraan boo ci demee da ngay gis ne li muy bari bari ay ndigal ki tere ak i ak yeneen ci des yëpp dajale na lépp li tax alquran jóg ci benn baat daalika al kitaab laa rayba fihi hudan hudan lil muttaqin njub rek njub dong moo tax alquran jóg moo tax téere yëpp wàcc njub nag mooy dox ci yoonu yoonu yoon yoonu yoon wi ne coy bañ a jàdd bañ a fenn dox ci yoon wi yoon yoonu siraatal mustaqim waaw dox ci yoonu siraatal mustaqim rek mooy ak njub te loolu sëriñ bi moo ñu ko njëkk a woo moo ñu ci njëkk a woo woo rawatina ndaw yi ñoom ñëpp mu ne leen dañ soxlawoo ak njub buñ soxlawoo lenn ci seen adduna ak seen alaxira lu dul ak njub waaye nag ba leen ko waxee ak njub mu leeralal leen nag moyens yi nga xam ne wala jumtukaay yi nga xam ne moom lañ war a jëfandikoo ngir àgg ci jub googu leeral leen nit gàllankoor yi nga xam ne moo leen di soppi ci njub googu leeral leen nit njëriñ yi nga xam ne moo nar a juddoo ci njub googu bu ñu ko sóoboo yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi istaxilu fastaxilu bil xifsi wa tilaawa wa tanibu majalis saxaawa wa laazimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ila hudaahu qaa'ida fa kullu man baadara waqta sigari ila al huda istaraaxa waqta al kibari bay yooyu li ci sëriñ bi di wax mooy njub ak njub la sàkkuloo gone yëpp mu ne nañ jóg rek jëm ci ak njub dëngmal ko te bañ xool fenn njub nag noonu ñu ko waxee mooy tegu ci yoon wi di dox te bañ a jàdd bañ a jàng muy muy mbir mu jafe nag moom njub googu mbir mu jafe la mu am mu bari coono la bari coono googu mu bari coono moo tax saa bu ñu julli juróomi julli yëpp ñuy ñaan bu ñuy jàng fàttee ihdina siraatal mustaqim di ñaan suñu borom mu jàppandal nu jubal jub googu te saxal nu ci ci jub googu nga xam ne moom lay sàkk ci noonu ñu di ko ñaan ci fatiye ju nekk ñu di ko ñaan waaye nag jafe googu mu jafe ba ñu di ko ñaan dañoo wutal nag ay jumtukaay yoo xam ne buñ ci jaaree dañoo jàppandal jub googu ak lu mu jafe-jafe ak lu euh, euh, mu métti métti ba ca jëkk ci jàppukaay yooyu mooy jàng alxuraan mokkal alxuraan fastaxilu bil xifzi gone gu ndaw dañ koy jàngal alxuraan bu ko mënee wattu wattu ko bu ko munta wattu mu jàng ca kem kàttanam loolu sëriñ bi moom it waar nañu ci ba tey daa nañu wax ne bu ñu ko indilee gone mu ne ci kanamam day laaj waajur wi ne ko fu mu toll ci njàng mi mu ne mu ko barab sàngam wattu na wala toll na barab sàngam mu ne ko na ko dimbale ba mu mokkal alxuraan ndax jëmm juñ defee ne ku ko dimbale mu mokkal alxuraan ñàkk koo dimbale ba mu ñàkk koo mokkal kaw suuf si ñu nekk lu ci lu kaw suuf si lu ci nekk jëru ko li nekk suuf sëpp jërut bàyyi nit ku mën a mokkal alxuraan sàggane ko ba mokkul alxuraan Sëriñ Tuubaa nee kaw suuf si lu ci nekk jëru ko buñ ko jàngalee alxuraan ba noppi nag ñu jàngal ko ulumu shar'iyya boolem ulum yi nga xam ne day tax a xam yàlla xam xam wéetal yàlla ak yee aju yëpp ñu jàngal ko ko mooy bu fastaxilu bil xifsi wat tilaawa wat tilaawa ñu jàng jàng xam-xam xam-xamu sharia ñu jiital ko ak bépp xam-xam boo xam ne bu am njëriñ la sëriñ bi wax na ko ci ay barab yu bari amartu kullu man taallaqa bi li wa ci laayi bi taalami al aqaidi wa tawxid wa ahkaami taharati wa siyam mun kulima yi ji waxee zalik min kulima yi ji alal mukallaf képp koo xam ne aju nga ci sëriñ bi rek digal na la nga xam lu lépp lu jëm ci sa mbirum diine ak ci yi koy jàppandal ba ca des ñetteel ba mooy moom nag bu buñ ko jàngalee alquran jàngal ko xam-xam ñu euh, fexe ba mu taqoog ab jaamu ko te yàlla bu koy mat ci njub googee ab royukaay loolu mooy ab royukaay moo am ab royukaay boo xam ne da koy roy ca la muy def di ko roy ca la muy wax ndax loolu gone loolu la gën a mën a jàpp ci leneen lu moom gis kuy def muy def wala gis koy wax muy wax gàllankoor yi nag mooy gàllankoor yi gàllankoor ci njub nag mu daal di ko tuddaale wajtani bu majalisa shaqaawa majalisa shaqaawa mooy bépp jataay boo xam ne amul sañ amul njariñ amul njariñ ci diine amul njariñ ci àdduna ah, wala amul njariñ ci diine amul njariñ ci alaxira jataay boobu jataay texee di la te moom muy jataay yu bari lool nag bu njëkk ay jataay la yoo xam ne da ngay dem fekki ko léegi nag jataay texee di yooyu moo ñuy fekk si ci suñuy néeg fekk ci suñuy saal fekk ñu ci suñu suñu barab yu ñu nekk fa jataay yoo xam ne jataay yu taxee di la te mooy jumtukaay yu bees yi nga xam ne ci lañ nekk mu ne nag euh, bul bul bul kon bul toog ak kenn koo xam ne doo dolli koo ci moom adduna wala doo dolli ko ci moom am xel loolu wala tu jaalis xayra man bihi tusaat diinan wa aqlan abadan tanal muraad njëriñ la nag mooy boo nekkee ci ak jub nag ba sax ca nag lam lay jëriñ mooy al istiraaha indal kabar kibar mooy da ngay noppalu ba màggee fa ku lu mën baadara waxta sixari ilal huda staraha waxtal xibari kon nag loolu ndigal la loo xam ne sëriñ bi moo ko digal gone yëpp waaye waajur yi nag lay waxal ndax gone yi lu ci bari duñ mënal seen bopp lii waaye dañ leen cee omat waajur yi bu ngeen si ommatee bañ nag bañ tegu ci yoon ma nag seen responsabilité daal di mën a teggiku ku anfusakum wa ahlikum naaran kon ajuma ji di ñëw incha allah danañu euh, euh, waxtaan ci dëkk bi nag gone yi buñ defaree seen bopp mu mel ni mu a mel nan lañ war a sàmmee dëkk bi ñoom ci seen bopp nag ni leen ko sëñ bi sàkkoo ci ñoom ñu ñu mën ko mën ndax bala ngaa mën a defar da ngay defaru yow ci sa bopp da defaru boo defaroo nag daal di mën a defar lu bari waaw euh, waxtaanu ñaareel bi nag ñu ngi koy aj ci euh, li nga xam ne sëriñ bi daf ko digle woon ci euh, juma ajuma ji wéy ci juma ji waxoon ne xutba yi nga xam ne moom lañuy def nañ fexe ba di ko firi ci wolof imaam xutba bi muy firi mu di ko firi ci wolof ba nit ñi mën koo dégg mën koo xam ndax moom dafa bëggal ñëpp njariñ njariñ rek la bëgg bëggal ñëpp li mu bëggal boppam it la bëggal boppam ñëpp waaye nag moom xutba bi moom dégg na li ñuy wax kon bu buy wax ñu wax ko ci olof boppam taxu koy wax ak ñamel ni moom waaye nag daa bëgg ni ñëpp jariñu daa bëgg ni ñëpp dégg li ñuy wax ba mën koo ba koo sàmm bu baax a baax a baax a baax ah, la ci jëkk mooy euh, moom xutba bi xutba bi nga xam ne moom la sëriñ Maamun di di waaj a def xutba boobu xutba boobu sëriñ bi waxoon na ñu di ko wax xutba bi ñu di ko wax wolof ci mimbar bi waaye biñ ko defee sëriñ bi seetlu na ne julli gi dana gudd lool mu yërëm nit ñi ci taxawaay bi yërëm nit ñi ci jataay yi mu ne kon nañ koy jiital bayaan bi ñuy def nga xam ne day jiitu waxtu wi ñu di ci fexe bari ci leeral xutba bi bi ñuy wax ci arab ba nga xam ne ñëpp danañ ko dégg ba ki koy wax bu ko waxee ci arab fekk na ñëpp dégg nañ ko ci olof ba ba ba noppi loolu lu am solo loo xam ne Euh, euh, lu lu yéene nit ñi aw yiw rek moo tax sëriñ bi di ko def xutba bi gannaaw bu sëriñ bi imaam sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi tagg yàlla seereel ko ak euh, benn bennam julli ci yonent bi sallallahu alayhi dafa dafa dafa waxtaan ci dafa waxtaan ci ne na ngeen ga na ngeen góorgóorlu yéen nit ñi na ngeen góorgóorlu bu baax a baax ci luy dundal seen alaxira te ngeen fab ci seen adduna joxe ngir defar seen alaxira adduna ju juy jeex ji nga xam ne day jeex léegi alaxira jee nga xam ne day sax fab leen ci adduna yi yóbbu ci alaxira joojee nga xam ne moom du jeex denc ko fa te ngeen jëflante ci seen diggante ci jëflante boo xam ne day aju ci maandu ak rafetal maandu ak rafetal ndax loolu sunu borom tabaraka wa taala moo ko digle inna allah yaamuru bil adli wal ihsaan maandu ak rafetal jëflante bu ne diggante nit ak moroomam wala diggante jullit ak moroomam maandu ak rafetal moo ca war a nekk na ngeen wattandiku saytaane ak bànneex ndax seytaane kat lim leen di woo lépp daf leen di woo rek ci seen musiba daf leen di woo rek ci sawara la leen jëmee innama yadahu xisbahu li yakunu min asaabi sair na ngeen wattandiku bànneex bànneex tam daf leen xëcc rek jëmee leen ci seen demee leen ci ak doyadi ak suufe ci la leen di jëmee waaw wala tattabiul hawa fa yudillaka an sabilillah na ngeen di fuglu seen bopp waaw da ngeen di fuglu seen bopp ndax yàlla kat mi ngi fuglu képp ku koy moy ak képp ku koy topp mi ngi lay xool mi ngi lay gis mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi bind la nga doon def la ngay def tam bu dee ak moy la bu dee ak topp la te ngeen taqoo ak ragal yàlla ni ni leen ko yàlla digalee ci téere bu tedd bi euh, alquranul karim yaa la ayyuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yéen ñi gëm yàlla nee na na ngeen ragal yàlla tey wax wax ju rafet kon loolu li ñu ciy déggee mooy gëm yàlla ci xol lay nekk waaye la koy feeñal ca saayir nag mooy ay jëflante ak wax yu rafet ak jëf yu rafet wa qulu qawlan sadida ki gëm yàlla liy tegtale ak gëm yàlla mooy day wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet bu ngeen ko defee loolu bu ngeen defee gëm yàlla googu di wax wax ju rafet yàlla dana yéwénal seen i mbir yépp seen aajo yépp dana ko yéwénal dana leen jéggal seen i bakkaar loolu mooy xutba bi nga xam ne mooy xutba bu njëkk bi nga ne moom la sëriñ bi war a war war war a wax bi ci des mooy euh, xutba bu ñaareel bi mooy bi mu jullee euh, sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba noppi daf ñoo soññaat rek ci ñu jublu ci liy defar suñ mbirum àdduna suñ mbirum alaxira ñu jiital ko lépp luy defar suñ mbirum alaxira nañ ko jiital ci liy defar suñ mbir mbiri àdduna waaw ndax ndax koo xam ne sa mbirum àdduna daf laa jiital ba nga fàtte sa mbirum alaxira soo demee alaxira danga nga ko da nga ko lool ndax la nga li ngay jëf ci àdduna moom daa tuuti lool te loola dong boo demee moom ngay am ci alaxira kon nañ jiital alaxira ci suñu àdduna ji képp koo xam ne tàmmulee nga sa mbir sab cër ci àdduna sa cër ci alaxira tàmmulee nga ca nee na da am àdduna da nga am alaxira waaye ku tambulee sa cër ci àdduna da nga ñàkk àdduna te doo am alaxira dara da am àdduna da nga ñàkk àdduna te doo am dara muy xutba bu am maanaa boo xam ne bu am solo la ci dénk nit ñi ñu delluwaat ci yàlla delluwaat ci yàlla moo tax sëriñ bi bëgg ñu di ko wax ci olof ba nit ñi dégg ko bu baax a baax baax a baax te wax gi ci olof ñu di ko wax ci bayaan bi ba nga xam ne bu ñuy julli julli gi du gudd bay sonal nit ñi ci ni ni ni mu demee woon wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah huwa xayran wa azama ajra wastaxfirullaha inna allaha xafuru rahim suñu borom tabaraka wa taala nee na da ngeen da ngeen jiital da ngeen jiital lu baax fa ngeen jëm alaxira dañuy wax ne dañ fay feret ku fay dem da nga fay yóbbante mu dem jiitu la fa waaye doo fa yóbbaale dara doo fa fekk dara loo fa loo fa defutoon kon loo fa loo loo fay loo fay am da nga koy yóbbante mu jiitu la fa fekk la fa ma tuqaddimu li anfusikum min xayr su ngeen ko defee tajiduhu indallah loolee da ngeen fa fekk fa yàlla mu mën ba tëkk yàlla fay leen ko ba ma tëkk wa xayran wa asaba ajran wa astaxfirullaha inna allaha gafurur rahim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh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 xabasal xalil amma baadu fa yaa ayuha nnaas aqbilu ala ma kulliftumuuhu min islaahi axiratikum wa ahridu amma dulima lakum min amri dunyaakum innahu man bada bi nasibihi min addunya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 الحمد لله ما تحرك متحرك وارتج ولبى محرم وحج وقصد البيت الحرام من كل فج وأقيمت للصلاة وأقيمت لله في هذه الأيام مناسك الحج الله أكبر ما نحرت بنا من نحائر وما وحرمت وحرمت لله الشعائر وسار إلى الجمرات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 wala yalzimu taqwa kama amara allahu ibadahu wa awsa qaala taala yaa ayyuha alladina amanu ittaqu llaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum zunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين الله الله أكبر سمع الله لمن حبنا ولك الحب الله أكبر الله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 ليس له دعاء من ذلك لا يسمن ولا يغنم من جوع وجوه يوم ناظمة لسعيها راضية في جنة معالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين دارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة وأنهار مصفوفة وزرابي مصفوفة أفلا ينظرون إلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم allahu akbar sami allahu liman rabbana lakal hamd allahu akbar asalaamaaleykum asalaam